الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu dajalewaat ci biir chahru ramadan bu mille quatre cent quarante-trois ci loo xam ne bi ñu fi teqalikoo daaw ñu ngi ko ko doon ñaan suñu boroom yàlla wërsëgal ñu ko mboolem ñi nga xam ne nii faat na leen ci diggante bi yal na yàlla jéggal leen yërëm leen ña ca nekk ci tolof tafu ay tolof tolof ci wàllu feebar ak xat-xatit yal na yàlla teggi ko ñun ñi fi desandi it yal na ñu dundal ci ngërëmam ak afiya kon ni ngeen ko xamee rek mooy téereb yàlla bi ab julit daa war a ñaan ànd ak moom ba ba muy dajeeg boroomam loolu moo tax ba buñ ci nekkee ci guddi àllarba yi bu dee ne weeru koor ñëwit ñu ànd ci ci bëccëg yépp incha allah su ko defee li nga xamee ne nii moom la ñu teqaliko woon ak yéen mooy soratu talaaq tey jii ñu war a jël la nga xam ni mooy suratu tahrim ñu xam ne it fekke jataayu alquran ci jamono bu nekk lu baax la waaye nag rawatina ca la nga xam ne nii moom mooy shahru ramadan dañu xam ne boroom xam-xam yu jëkk ya ñu ci bari daan jàngale ay xadis ak fiq dañ daan def bu weeru koor jotee ñu bàyyi lépp lu ñu nekke woon féeteeg téere yàlla bi di ko jàng guddi di ko jàng bëccëg ba dañ la cay wax ay mbir yoo xam ne nii yu yéeme la bokk na ci ko mel ne imam Shafii biñ naan daana jàng benn kaamil ca suba di jàng benn kaamil ca guddi ga ngiree màggaayu shahru ramadan doonte ne ne bu dul looloo la gën mooy julit doo jàngal quran lu yées ñetti fan kon di daje ci bëccëgu weeru koor di jàng téere borom bi la ci nekk ci atte waaye bu guddi jotee it ñu taxaw di ko tari loolu tasaaroo na lool alhamdulillah ci kaw suuf ñi ngay ñaan suñu borom yàlla ma ñu ca boole yàlla na yàlla nangul ñu ko kon incha allah dañu bàyyi ak Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu aaye bu njëkk ci suratu tahrim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أي ينتبي لما تحرم ما أحل الله لك لتخغي أرامل تيال ليال دغنال نيل تبتغي مرضات أزواجك يانجي سكو ليغا خمنا مويسا نغرمال سخني wallahu ghafurur rahim doonte ne yàlla day aji koy jéggale la aji koy yërëmaate la qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum yàlla faratal na ci yéen lii nga xamee ni nii moom mooy daganal waat ya nga xam ne da ngeen ko waatoon la leen la nga xam ne moo leen cay mën a génne wallahu mawlaakum yàlla mooy seen péete wa huwa alalimu alxakim moom mooy ki xam lépp te mooy ki xereñi wa id asara annabiyu ila baadi azwajihi xadisa fàttalikul ba muy déey yonente ba jëm ca lenn ci ay soxnaam lii di benn wax falamma nabbaat bi ba soxna sa demee ba xabaare wax ja wa azharahu allahu alayhi yàlla feeñal loolee ca kaw yonentam ba arrafa baadahu wa arada an baad xam len lenn la jëm ca soxna sa du mooyu ca la ca des falamma nabba'aha bi bam demee ba xabaare soxna sa lam def qaalat man anba'aka haadha mu ne waaw lii moom yow yonent bi kan moo la ko xamal ku la ko xabaare qaala nabba'ani al-alimu al-xabir mu ne xamal na ma ko ki nga xam ne mooy aji xam lépp ki ñàkk kumpa ci lépp in tatuuba ila allah su dee ànd ngeen tuub dellu ci yàlla faqad sagat qulubukuma xam leen ne day jëngoon na seen xol yi wa in tazahara alayhi su ngeen continué nag di dimbilente ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa inna allaha huwa mawlaahu yàlla day moom mooy péetéem wa jibril wa salihul muminin mu ànd ak jibril ak ña baax ca julit ña ña yiw ca julit ña wal malaikatu ba'da zalika zahir ca malaaka yi gannaaw loolu lépp aji koy dimbi lañu aji ñuy dimbali lañu encore ab yeneen tam mi ngi noonu mbokk lii mooy suratu tahrim di saar boo xam ni saar bi ñu mujj a jàng mooy suratu talaq saarum fase suñu borom dañuy jàngal ci taxrim bi taxawaayu borom kër naka lay def ba fitna bañ a am ci këram ba ay tas du ca am waaye it njaboot gi mucc ci merum yàlla jalla wa ala suñ borom yàlla jëkkawoo suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam e yow yonent bi mu ñuy jàngal ne yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam borom bi jalla wa ala mooy ki nga xam ne moo ko màggal mboolem yonent yim ñu tudd ci alquran woo na leen seen tur ya nuux ya ibrahim ya muusa ya isa ila axiri waaye suñu yonent mus ko woo directement ci turam loolu it yow julit bi it noonu nga war a màggale yonenti yàlla bi doo nekk naan muhammad nee na wala kaza wa kaza naan qaala rasulullah mi ngi noonu aw nabiyallah muy wane it ni kii nga xam ne moom lay waxal yàlla moo ko yónni muy ab nabi bu yàlla xamal du ne diine ji xalaati boppam la du ne dafa ñëw nekk yàlla déedéet ab jaam la bu ñu yónni mi ngi noonu suñu boroom daani na ko waaw yow yonent bi lu tax yàlla daganal ci yow ay mbir nga wëlbati ko di ko araamal ci yow loolee mbokk borom xam-xam yi wax nañ ci ñaari qissa donte ni dañ cee jël bañ ca doyloo mooy rasul sallallahu alayhi wa sallam yoroon na ay soxna yàlla jagleel ko ko moom kese mu denc juróom ñeenti gor léegi nag da daan def bés bu nekk waxtu tàkkusaan dana dugg ci néeg soxna yépp ku nekk mu waxtaan ak yow doog a jàll ba guddi mu doog a fanaan fa nga xam ne nii fa lay aye loolu kon taxoon na ba da daan dem dugg ci néeg yaay Zeynab bint Jaash di fa xaw a yàgg lool ndax kooku ay mbokkam dañ ko daan indil lem te yonent bi bëggoon ko lool loolu nag kii nga xam ne mooy yaay Aïcha ak yaay Hafsa daa di ne ko daa di ne bu jógee tee ci néeg Zeynab rek na nga taf sa bakkan ne lem gii day ne li nga doon naan day dafa am ay lekk yoo xam ne ay gunóor ñuy wax magafir bu ko laalee da koy yàq loolee ba mu ñëwee ci yonent bi ñëwee ci Aïcha Aïcha na ko waaw yow li ngay xeeñ lu mu doon mu ne ko lu may xeeñ man naanuma lu dul lem mu dem ci néeg yaay Xafsa kooku ne ko li ngay xeeñ lu mu doon mu ne kon kon day kii day lemam gi araamal naa ko ay lemu Zaynab bintu Jaash loolee kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala di ko wax ne déedéet ngiree rek ne say soxna ñooy wax ak yow warul tax ngay dem di araamal lem gi ni mu leen ko waxee am na yeneen riwaay yu ci ñëw donte ne ni alquran heure bu yàlla waxee ak bu yonentam xeet bi yépp lay waxal lu dul loo xam ne dalil da caa ñëw wane ne lii yonent bi rek a ko moom looloo tax araamal ci yow la yàlla daganal julit du ko def loolu te jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñetti nit ñu ñëwoon laajte naka lay jaamoo yàlla ñu wax leen ko kenn ki ci ñoom ne man day bis na ki tey danaa araamal sama bopp nelaw guddi damay fanaani naafila kenn ki ne danaa araamal sama bopp lekk bëccëg damay dikkee koor kenn ki ne danaa araamal sama bopp di ànd ak ay soxna mi ngi noonu damay nekkub labbe waaye ba ka yonent bi alayhi salaam yégee daf ne maa leen gën a ragal yàlla gën leen xam yàlla te man day damay tëdd guddi di nelaw comme ni may naafila damay woor bëccëg comme ni may doge te damay ànd ak samay soxna sama sunna ku ko xeeb bokkatoo ci man almuhim loolu la suñu borom wax ñaareel bi mooy yonent bi alayhi salaam yëg ne ne soxna yii kat bëgguñu toogaay ba muy toog ca néeg Zeynab bay naan lem ga ngir sakku seen ngërëm tax gën na koo puusa ci loolu borom bi it di woo xeet bi gàllawaay yéen xeet bi moytu leen sakku seen ngërëmi soxna ba tabbi ca loo xam ne day nekk merum yàlla ca loolu mbokk julit dañuy gis ne borom bi wax nañu ca saar bi jiitu toloq et yéen jullit ñi def leen attention seen soxna yi am na ci ay noon loolu te ji boo demoon ci société occident dañu nekk di réformer di réformer jàpp ne jigéen ñi dañ leen war a yëkkati dañ leen war a jox cër ñu demee dem ba cër boobee nag mujj tiim cëru góor ba tey boo demoon ci quatre-vingt-dix pour cent des tubaab wuy madame rek madame moom mooy chef loolu nag suñu intellectuels yi jàng ci ñoom it daf leen a topp ba da ngay gis lu bari ci seeni kër seeni soxna ñoo ko moom ñu bari ci ay intellectuels seeni soxna teqalee nañu leen ak seeni mbokk amul seen benn mbokk bu ñu may ñëw naan day nekk ak ñoom di dëkk ak ñoom xarit ya neexul soxna si teqale nañ ko ak ñoom loolu nag yow julit da ngay xam ne doo mel noonu bul moytu moytul topp sa ba- bànneexu soxna ci lu yàlla araamal borom boobu nag mu ne moom mooy jéggale ca mooy yërëmaate ca na am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit la woon da daan juum comme ñun ni ñuy juumee lu dul yàlla musal na ko du dugg ci kabair yonent du dugg ci kabair waaye nag da daan juum suñu borom yàlla na ko nag jéggal naa la bal defal ko lu mu defalul kenn ci ay jaamam li nga mas a def lépp jéggal naa la ko loo nar a def jéggal naa la ko moom rek moo ko amoon léegi nag suñu borom wëlbati ko ne yéen julit ñi képp ku ci waate ci ne lii araamal naa ko may naa leen ñu ngeen ca génne ndax maay ki aji xam te maay ki xereñi xam naa ne ñu lomp ñu ñu lompañ ngeen aka bari nit ki li muy waat ne lii danaa ko def dem ba yàgg gis ne bañ koo defe gën aka bari lu nit ki di waat ne lii dootuma ko defeti mi ngi noonu gannaaw ba mu gis ne def ko mooy li gën loolu tax suñu borom indil ñu kafaara kafaara mooy lan lépp loo xam ne waat nga ne ne lii day dinaa ko def yonent bi alei salaam nee na boo demee ba yëg ne bañ koo defe gën kafaaral sa ngiñ googe te mooy nga daal di xool fukki miskin ku ne nga jox ko loo xam ne ni dana ko dundee masalan un kilo ceeb fukki miskin ku ne nga jox ko un kilo ceeb am na lu gën a jafe mooy ku ne nga jox ko lu mën a sol ba julli su dee amoon na nga woor ñetti fan kon mën nañu wax rek ci tënk ki waatoon ne dootul def nangam gis na def ko moo gën na def kafaara na leeg na leel fukki miskin ku ne un kilo ceeb su amul mu woor ñetti fan borom bi it di ñu xamal ni bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ñoom Hafsa ak Aïcha ne leen day lem gi dootuma ko naanati ñoom ci diggante wujj ak moroomam gaaruwaale nañ ko ba xamal ko la nga xam ne mooy Zeynab doonte ne ne yonent bi waxoon na leen lii na yem suñu biir waaye jigéen ak fiir digganteem ak moroomu fiiram dem nañ ba génne secret boobe loolu it di beneen mbir boo xam ne bépp jigéen war na cee bàyyi xel ndax ci ñoom la ëppee mooy secret yi nga nekk sa néegu sëy ngallaawaay dee ko sàmm ka bari ay jigéen yoo xam ne daan jëm ca xarit ya ca nijaay ya ca mbokk ya weer seen borom kër ne géej lu nañu yekk ko ko lu nañu wax ko ko ba pare wëlbati ko da ànd ak moom di ko fag ree su ko defee su ko defee kon incha allah ñu góorgóorlu ci la nga xamee ne nii moom mooy mbir yu demee noonu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala bi nga xamee ne xamal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la ko la nga waxoon say soxna la nga waxoon soxna yi ne nañ ko denc génne nañ ko yonent bi ñëw na ci ñoom na leen la ma leen denc loo leen day génne ngeen ko ñoom ñu yéemu kan moo la wax li mu ne yàlla mi ñàkk kumpa ci lépp moo ma ko wax waaye yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam lan la ca teg mooy su ngeen tuubee day xam leen ne seen xol jeng na ca mooy woo leen ñu jëm ci ak tuub te it loolu moo war a nekk position kilifa gu nekk mooy boo yëgee ne sa njaboot juum nañu nooy mën a defe ba redressé ba loolee mën a tegewaat ci yoon su ngeen tuubee day xam leen ne seen xol yi jeng na amaa nag bu ngeen nekkee continuer di compléter contre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu moom yàlla moo jëlal boppam kaddu ga ne yonent bi de yàllay féeteem ak jibril ak ñu baax ñi malaaka yi ci la ñu bokk lii bokk na ci borom xam-xam yi di wax mbokk bokk na lu gën a nekk musiba ci góor yàlla nattoo ko soxna su bon da koy déstabiliser te rawatina kii mooy yonent yàlla bi su dee xolam dafa jaxasoo këram jaxasoo te muy jiite jullit ñi loolee day am effet ci xeet bi yépp loolu yi tamit ku nekk ci ñun war caa bàyyi xel borom bi wax nañu ci yeneen aaya ne jigéen seen i pexe dafa rëy seen pexe dafa rëy naam buñ ko méngalee ak pexey góor looloo tax borom bi subhanahu wa taala ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay péeteem dëgg-dëgg mooy yàlla ak yonentam ak malaaka yi ak gaay yu baax yi ci itamit yow julit loolu dala war a doy heure boo yégee ne yaa ngi ci benn position boo xamee ni ni yàlla gërëm na ko ay malaakaam gërëm nañ ko julit ñi baax ñi gërëm nañ ko ay waay waa dëkk bi yépp lañ la contre waa dëkk bi yépp lañ la mere su dee ne yow lii nga nekk yaa ngi nekk ci yoonu yàlla yaa ngi nekk ci ngërëmal yàlla mën na am dëkk bi yow dong yaa fi dund sunna yow dong yaa tege ci yoon bi maadaama ñi ñi nga ànd ak yow fa inna xizballah humul ghalibun ñi ànd ak yàlla ñoom rek ñoom ñooy texe yal na yàlla boole ñu ca ñooñu mi ngi noonu Cheikh Ousmane
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات خيرا منكن مسلمات مؤمنات قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون barakallahu fikum suñu borom mu ne ab yonentam mu ne boog soxna yonentam asa rabbuhu in tallaqakun mën na am boromam yàlla day su dee yonent bi fase na leen an yubdilahu azwajan xayran minkun mu soppil ko soxna yu leen gën muslimaat ñoo xam ne dañuy jébbalul seen boroom mu'minaat ñoo xam ne dañuy gëm seen boroom qaanitaat ñuy wommatul seen boroom taa'ibaat ñu sax di tuub seeni bakkaar aabidaat ñu sax ci la nga xam ne mooy farata yaak naafila ya saa'ihaat ñu sax di dëkk ci ak koor tayyibaat ñee nga ñoo xam ne ni ay jéeg lañu wa abkaara ak ñoo xam ne ay jànq lañu yaa ayuha allazina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm qu anfusakum wa ahlikum naara e waay fegal leen seen bakkan ak seen njaboot yi li di sawara waquuduha annaas walxijaara matt ma koy taal ay nit la ak i xeer alayha malaikatun gilaazun shidaad nekk na ca ay kawam ay malaaka yoo xam ne borom xol yu dëgër lañu ca ñu am kattan lañu laa yaasuuna allaha ma amarahum duñu mooy yàlla mukk ca lam leen digal wa yafaluuna ma yumaruun ca duñu def lu dul lam leen sant yaa ayuha allazina kafaru amma yéen ñi nga xam ne da ngeen ne weddi la ta'tazirul yawm bu leen nekk di sakku jéggalu tey ji innama tujzawna ma kuntum ta'malun kenn du leen fay lu dul la ngeen nekkoon di ko jëfe rek mi ngi noonu mbokk gis nañu suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam yàlla defoon na ko mooy ki gën a mat ci nit ñi ci léppam looloo tax soxna yëkk a siqoon fiire gañ ko doon fiire jéggi na dayo lool mi ngi noonu fiire gañ ko doon fiire jéggi na dayo loolu taxoon na ba benn bis daa leen bàyyi ñoom ñépp daa di dem beru ci benn néeg duggatul ci kenn ci ñoom bu ñu delloo ci Omar ibn Khattab muy nettali nee na dama amoon suma benn dëkkandoo ci waa ansaar su ma xëyee tey dem ca yonente ba sallallahu alayhi wa sallam di déglu la fa wàcc ci alquran ak sunna moom mu dem marché uti lum dundale njabootam suñu dajee ma jàngal ko suñu xëyee suba man maay dem marché moom mu dem ànd ak yonent bi nee na bis la ñëw fëgg ma guddi ma ne ko waaw diw lu xew mu ne ma lu rëy moo xew ma ne ko mbaadu waa Ghatfaan dañ ñoo attaqué muy benn giiru arab boo xam ni ghazwatu ahzab bi waa Makka ñëw ñoo àndoon mbaadu dañ ñoo attaqué mu ne ko lu gën a rëy loolu moo am Omar nee na ma tiit ak sama lambay ubbi bunt bi ne ko lu xew mu ne yonent bi fase na soxnaam yépp gis ngeen Omar daa di ñëw bi mu ñëwee dugg ci kër yonent bi dem ci Hafsa doomam na ko waaw yonent bi da leen fase mu ne ah waxul waxi fase de waaye daal bàyyi nañu ñun ñëpp ma nga dem am na benn néeg bu mu génn fa la dem beru ji bi bi Omar ibnul Xattaab ñëwee laaj ko da ko yu mu yàlla yónni ndax da ngaa fase say soxna mu ne déedéet fasewuma leen de waaye nag dootuma dugg ci ne kenn ci ñoom fii ak un mois gis ngeen dootuma dugg ci ne kenn ci ñoom fii ak un mois ca loolu itamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la gisee woon noonu la yare ay soxnaam ndax yéen ñëpp xam ngeen suñu borom yàlla jalla wa ala bu dee jafe-jafe daa am cib sëy yàlla waxuñu mukk ne ndaw si ko bon la rek footballal mu dem déedéet dañoo jox ay ordonnance li jiitu mooy waar leen waar leen ñi ngi jàng sànq borom bi di leen wax wala boog yonent bi di di jottali kàddu borom bi in tatuuba ila allah faqad sagat qulubukuma li ngeen def ak jéng la baaxul tuub leen dellu ci yàlla borom bi mu ne suñ demee ba waaraate bi amul njëriñ su boobaa nag gàddaay leen leen gàddaay leen leen looloo tax rasul sallallahu alayhi wasallam moom système ba mu gisoon mooy dootul duggati ci ne kenn ci ñoom pendant un mois ba mu fa defee vingt neuf jours ci la génn bañ ko laajee mu ne waaw weer vingt neuf lay doon te mooy li ëpp ci loolu mbokk Omar ibn Khattab bi mu génnee ba yonent bi wax ko loolu te la ñëw fekk biir jàkka ji sahaaba yépp ngi jooyi mu ne leen bég leen yonent bi fasewul ay soxnaam na am mbokk dilit kii may rasulullah président de la république chef d'état-major des armées le procureur il le tout ku mel noonu su jaxasoo ba soxnaam yépp mu fase leen loolu du yem ci moom kese looloo tax saxaaba yi doon jooy mu ne bég leen suñu bor yonent yàlla bi fasewu leen na am fasewu leen waaye suñu borom yi dellu si waat di wax ak soxna yonent bi ci ñu dal borom bi mu ne gis ngeen su ngeen bëggee continuer nii ngeen nekke man danaa ko wuutalal soxna yu leen gën te mooy danaa ko sant mu fase leen ma wuutal ko soxna yu leen gën mbokk soxna su gën naka lay mel mooy dafay doon al muslim mooy muslimaat te mooy ki nga xam ne gëm na yàlla di jëfe ay pratique am amma al mu'min mooy ka nga xam ni la yàlla gëm lu lépp gëm na ko al iman bu mat sëkk al qaanit mooy koo xam ne jaamu yàlla ga rëy rëy lu amu ca ngisal amu ca lépp toroxlu la ba tax suñu borom mu ne wa quumu lillahi qaanitiin su ngeen di julli na ngeen toroxlul yàlla amma at-taayib loolu itamit da ngay gis ne mooy jullit bi nga xam ne dafa war a sax di tuub di dellu ci yàlla fu mu mën a toll comme na ko ibnu omar daan nettalee daa nañ toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam balaa jatay baa jóg daan dégg mu wax rabbi xfirli wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim yàlla yàlla nag ma jégg jéggal nangu sama tuub yow yaay aji kii nangu ay tuub di yërëmaate lépp téeméeri yoon amma abida mooy ki nga xam ne foo ko gis mi ngi ci jaamu yàlla mi ngi noonu foo ko gis rek mi ngi ci jaamu yàlla sax ci loolee saihaat lu bëri ci borom xam-xam yi dañ koy firi koor am nañu ko firi it ña jóg di sakku xam-xam ak di dox ci un soxlay jaami jaami yàlla yi mi ngi noonu ndax as-saihin mooy ñiy wër gannaaw loolu yi tamit mu ne ko danaa danaa ko may ay jéeg danaa ko may ay jànq ca mbokk xam ngeen ni soxna yi tamit am na ci ay jéeg yoo xamee ne nii la ñu mën a taxawee ci sëy jànq du ko man loolu boo taxoon sax ba lu ci bëri ci arab yi ñoom jéeg yi am expérience ñoo leen di gënal amma bu dee ndaw yow xamal ne la gën ci yow mooy nga am ab jànq suñu borom yàlla nag daa di wëlbati ko waat lii day xew na kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jajji ay soxnaam ay yéen julit ñi yéen tamit fexe leen ba fegal seen bopp sawara fexe feex fegal ko seenu njaboot ca mooy duna dama baax rek daa firi na sama njaboot baax na déedéet naka la ñuy fexee ba njaboot gu ñuy fegal leen sawara mbokk ñaar yi dong la mën a doon fexe bañ xam seen diini tàggat leen bañ dund seen diini mi ngi noonu fexe bañ xam seen diini képp koo xam ne xamul diineem mun ta ragal yàlla mënul mucc ci sawara xam gañ ko xamit dafay laaj tarbiya mooy ñuy fexe ba njaboot gi soxnaak ay doom nañuy fexe di col col gu yiw bu ñu manqué seeni waxtu nga taxaw ci seeni koor taxaw ci seeni dem ak i dikk ba ñu déggal seen boroom lii rek mooy mën a tax ñu mucc ci sawara suñu boroom yàlla nag dañuy xamal ni sawara la nga xam ne mooy koy alimenté mooy ay nit ak xeer ñoo nekk ci biir sawara di takk malaaka ya nga xam ne ñoo leen fay wëlbati di leen jàllar bi malaaka la yoo xam ne yàlla mayu leen xolu yërmaande malaaka yooyu amuñu xolu yërmaande xilaas lañu te it ñu am kattan lañu duñu mooy yàlla duñu def lu dul lu leen yàlla digal looloo tax ba baay ba gën ci baay baay bi ëpp yërmaande ci baay wallaay nekkul koo xamee ni ni taxaw nga ci étude ya bu ñu feebaree doo nelaw añ manquéwul reer manquéwul loolu day baax na mais c'est secondaire waaye ka gën ci njabootam moom mooy ka gën a taxaw ba njaboot googu jaamu yàlla ka gën a taxaw ba njaboot googu sori mooy yàlla kii mooy ki gën ci bàyyi kii mooy ki gën ci borom kër yi kii mooy ki gën ci njiit yi borom boobu nag subhanahu wa taala suñu demee ca àllaaxira dana wax ak yéeféer yi ca mooy benn yoon bu yàlla woo yéeféer ci alquran ba alquran jeex mooy fi muy waxee ni ay yéen yéeféer yi tey bu leen joxe benn ngant ca seen pay pay nekkul ludul la nga xam ne moom ngeen doon jëf saxoon ngeen ba faw ci mooy yàlla da ngeen sax ci biir sawara ba faw ci mbëggalum yàlla yal na yàlla boole ñu ci julit ña ci musul ñu ci kéeféer
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير barakallahu fikum suñu borom kon mu ne ya ayuha nabi ya ayuha allazina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm tuubu ila allahi tawbatan nasuha tuub leen jëm ci yàlla tuub goo xam ne tuub gu sell la ansa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum man na seen borom yàlla day ci mu far seeni ñaawteef wa yudxilakum jannaat mu dugal leen ci àjjana yoo xam ne tajri min taxtiha al anhaar dana daw ca suufam la nga xam ne moom mooy dex ya yowma laa yuxzi llahu nabiya walazina amanu maah bis bi nga xam ne yàlla du toroxal yonent ba du toroxalit képp ku gëmoon ànd ak moom nuuruhum yasaa bayna aydihim seen leer gaa ngay daw ci seen kanam wa bi aymaanihim ak ci seen ndeyjoor ya yaquluuna rabbana atmim lana nuurana ña ngay nekk naan ay yàlla motti leen ñu suñu leer waxfir lana te nga jéggal ñu innaka ala kulli shay'in qadir yow day yaay ki nga xam ne lépp mbir yaa cam kattan yaa ayuha nabi ay yow yonent bi jaahidil kuffaara wal munaafiqiin xeexal ak yéefér yi ak naafiq yi wagluz alayhim taralal ci ñoom jihaad boobee ngay def ak ñoom wa ma'waahum jahannam ñoom ñépp nag seen wàccuwaay mooy sawar wa bi'sal masiir ca ak a bon la nga xam ne mooy ak mujj mi ngi noonu mbokk dañuy gis ne suñu boroom jaar na kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour jàngal ñu ne kër gi kat lu ngeen baax baax teewul ay jafe-jafe mën na fee am dañoo war a laayante biir ñun ñépp ñu fexe di tuub di dellu ci yàlla looloo tax soxnaam yooyee yedd ga leen seen borom yedd ca la leen yàlla dëppale seen xol ya daa di laabaat ñu ngi noonu ñoom ñépp ñu ànd toroxlul dellu ci yàlla ba yàlla wëlbatiku ne ab yonentam laa yaxillu laka nisaa'u min ba'd ñii dong nga war a yem ci ñoom doo leen soppi mi ngi noonu ci kenn doo leen ko soppi loolu mbokk mi ngi noonu safaanoog mbokk yooyu nga xam ne ñuy waa chia aaya yu mel ne aaya yiñ jot a jàng ca la ñuy profito ci ñi nga xam ne xamuñu diine lu ñu dul yekk yaay Aïcha ak yaay Hafsa lu ñuy fàtte la bal ñu bari ci ñoom jàpp nañ ne amul yàlla bindul sax jigéen bu gën a bon ñoon mbokk loolu musiba la boo xam ne nga la waay nañ ci bàyyi xel ñooñu nga xam ne rasul sallallahu alayhi wasallam mi ngi faatu bàyyi leen fi ñooy yaayi jullit ñi ñoo gën ñeneen jullit ñu dul ñoom ñu doon dunda loolu mi ngi noonu ki nga xam ne nii mooy yaay Sawda yaay Aïcha yaay Hafsa umu Habiba ki nga xam ne nii mooy umu Salama ak ki nga xam ne moom mooy Safiya ak Juwayra ak Maymuna bintul Harisa juróom ñeenti yooyu ñooy suñuy yaay dañ leen a war a warmaal noo raw ni ñuy warmaale suñu yaayi deret ñu ngi noonu borom boobu tamit noonu la woowee julit ñëpp te mbokk loo baax baax baax mënoo fexe ba gën a baax soxna yeneen ci bi kon yéen julit ñi tuub leen dellu ci yàlla tuub goo xam ne ni nag tuub gu sell lay doon te mbokk dafa am tuub yoo xam ne nii tuub googu daa war ñu tuub ko waaje naan ah nañu yàlla jéggal rek dem ca njaaloo ga nañu yàlla jéggal rek naan sangara nañu yàlla jéggal rek nangam laa wallahi mbokk tuub day sell boo déggee ñu ne nasaxal asal sellal na lem gi mooy dindi na lépp loo xam ne nii lu ca taqoon la ay ñuul ñuul ak yu demee noonu kon nit yow booy tuub tuub gën a sell def ko ci yàlla tax bàyyil bakkaar ba dogul na dootoo ci dellu mukk gannaaw ba nga jégglu sa boroom lii rek moom mooy tub gu sell yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daam ñu ñaax e yéen julit ñi bari leen di tuub di dellu seen boroom man day bés bu nekk danaa tuub di dellu ci yàlla lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon loola tax tuub googee de séddilikoo ci ñaar mooy tuub gu ñu sopp te mooy julit bi yéeg nga def nga bakkaar wala yëgoo defoo bakkaar foo mën a toll ngay baril di tuub la gën a gàtt mooy astaghfirullah astaghfirullah mi ngi noon rabbi ighfir li astaghfirullah wa atubu ilayhi yooyu nga baril ko foo mën a toll amma nag moom boo yégee ne yàlla nattu na la nga def bakkaar su boobaa ne da ngay tuub tuub goo xam ne tuubu waajib la wareef la te mooy nga indi ca charte yooyu ma leen wax sànq su ca sa àqu mbokkum julit nekkee nga delloo ko àq ba te it doo jël kap kalfem jaamur ba pare naan yàlla astafurla astafurla déedéet da nga koy delloo kalfem ba pare doog wax astafurla kon mi ngi noonu borom bi nag mu ne mën na am yàlla far si ni bakkaar te it mbokku bakkaar it heure boo ko tuubee da ngay rafet njort ci yàlla ne yàlla baal na la waaye doo dogu ne yàlla baal na la mi ngi noonu ku mel ne Ibnu Mas'ud daan wax man day fekk naa ci yéen ngeen di def ay mbir yoo xam ne da ngeen jàpp dafa mel ne rek weñ buy naaw sa kanam nga def nii mu dem te ñun day jamono bi yonent bi dund dañ daan jàpp ne ku ko def rek alku nga xoolal keroog ñoom kaab ba yonent bi dee gàdd di jihaad jëm Tabuk ñoom ñu bañ a ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk alxuraan yi ngi wàcc suñu borom mu ne jéggal naa ñi àndoon ak yonent bi ñi amoon ngant jéggal naa leen waaye ñett ñi nga xam ne amuñu woon ngant demuñu seen mbir moom dañ koy delloo ci yàlla mbokk ñooñu nekk nañ ci biir société d'islam ci coono ci métit ba yonent bi ne leen seeni soxna sax nañ teqali ko ak ñoom kenn du toog ak ñoom kenn du jëflante ak ñoom ndax ñaari fan laa fukki fan laa juróom fukki fan suñu borom di leen seetaan ba baa lay doog a wax wa ala salasati lazina xullifu ña nga xam ne dañ leen bàyyi woon gannaaw ñoo ñi nga xam ne daqat alayhimul ard bima rahubat gannaaw ba suñu borom yàlla mu ne mu mu jéggal leen loolu it mbokk muy wañu ne julit heure boo defee bakkaar dee ko fàttaliku di tuub di toroxlu loolu moo tax ba borom xam-xam yi ne ak a bari ñoo xam ni seen bakkaar moo leen di tabbal aljanna mooy yëkkati seeni daraja ndax nem méttee seen xol ba fu ñu toll ñu koy naqarlu di ko tiisu di ko jéggalu loolee da ngay gis mi noonu la yëkkatee seeni daraja kon mën nam yàlla far seeni ñaawteef sayiaat donte na sayiaat dana yóbbaale fa nga jaar ba def ba def bakkaar ba yépp mi ngi noonu borom boobu it mu ne danaa leen tabbal aljanna yoo xam ne dana daw ci suufam ay dex te loolu it la julli war a gëm mu safaanoo ak benn pas-pas boo xam ni frilaa alhamdu suñ jamono yi tey bëriwul mooy li ñuy tudde waa xawaarij ak la nga xam ne nii waa mu'tazila ñoom dañoo jàpp ne julit bu defee kabair dootul julit ki lekk riba dootul julit ki neen sangara dootul julit ki rey nit dootul julit ca day tab bi sawara xaalidina fiha abadan ndax yàlla moo ko wax yàlla ñu ni ki rey nit sawara la jëm ñii ñii dekk àdduna jërim sawara lañ jëm ila axiri amma pas-pas yooyee waliyaas billah du pas-pasu lislaam yow julit di nga war a gëm mooy bakkaar yi yàlla tëkkoo lépp rey nitoo ribaawoo lu mu mën a doon ki nga xam ne ab julit la bu ko defee na am mi ngi ci tëkkug borom bi jalla wa ala waaye su ko tuubee dëggi-dëggi tuub yàlla dana ko ko baal avant muy dee même bu ko tuubul suñu borom yàlla ci njéggalam man na koo jéggal benn ci la nga xam ne nii julit ñi tiim nañ ko tiinul ko yàlla jéggulul ko comme ne yonent bi alayhi salaam doon wax amul benn julit buy dee ñeen fukki julit yu bokkaaliwul ak seen borom dara ñëw tiim ko jullee ko tiinul ko yàlla lu dul yàlla baal ko gannaaw ba su ko sunu borom bu ko neexee bakkaar yu mag yooyu mu doon def yàlla mbugal ko ko ci biir bàmmeel ba buy génn bàmmeelam day fekk yàlla jéggal na ko am na ñoo xam ne ci place bi si penc yi tamit yàlla da leen fay mbugal ngir bakkaar yi nam tare woon am na ñoo xam ne bette it dañuy dem tab bi sawara sax ngir bakkaar yi nam tare woon waaye maadaama dañoo nekkoon ay julit gëm yàlla bokkaale wuñ ko ak dara lu mu yàgg yàgg daañ mës a génn lu ñu yàgg yàgg daañ mës a dugg biir aljanna yal na yàlla dogal ñu àjjana ju àndul ak mbugal mi ngi noonu borom boobu nag ne keroog yàlla du toroxal ab yonentam du toroxal ko ànd ak ab yonentam waaye mbokk julit fexeel ànd ak yonenti yàlla bi sa sëriñ mooy yonenti yàlla bi sa royukaay mooy yonenti yàlla bi heure boo xamee ñu ne ay xalaat génn na ñu ne nii la yonenti bi doon defee e waaye na sëriñ Demba ak sëriñ Jóob ak sëriñ ku nekk safaanoog yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yow xamal ne yonenti yàlla bi mooy sa farandoo mooy sa àndandoo mi ngi noonu ku ànd ak yonent bi yàlla du ko toroxal alaxira mu safaanoog ay njuumte yu ñuy dégg ba koy dégg ci suñuy kilifay diine yowmal qiyaama bu yàlla nekkee ne yonent bi nekk ne sëñ diw nekk ne damay bàyyi yàlla ak yonent bi ja sëñ diw laa jëm mbokk loolu ay njuumte la ab jurit dafa war a gëm ne alaxira ña fa yàlla dul toroxal yowma la yuxzi llahu nabiya wala zina amuna ma ah nan ngay ànd ak yonent bi alaxira mooy da nga ànd nag moom ci àdduna mooy da ngaa doyloo woon sunnaam topp ci aw yoonam borom boobu nee nañu mel noonu day seen leer ma nga jóge ci seen kanam ngir ngëm nga ñu amoon yahdihimullahu bi imanihim leer gaa ngay jolli génn seen dënn ya mel ne projecteur téere yañ yor seen yëf yu baax ya leer yaa nga cay génn loolee da ngay gis jàngoon nañ ko suratul hadid ba nga xamee ne naafiq yi dañuy wax julit ñi unzuruna naqtabis min nurikum xaar leen ñu ngir ngeen yóbbaale ñu seen leer gi fekk ñoom amuñu leer gannaaw ba suñu borom yàlla bu fayee leerug na nafiq ya ca la julli ñoom di wax rabbana atmim lana nuurana et yàlla yàlla na ñu mottali suñu leer bañ jéggi sirat ci jàmm ba mën a tabbi aljanna ca nga jéggal ñu yaay ki am kàttan ci lépp lu mën a doon lii mbokk da ngay gis ni moom la borom bi jalla wa ala wax ñeent julit ñi gannaaw ba nag mu delluwaat ca yonent yàlla ba nga xam ne réglé woon na këram ci biir saar bi ba kër ga normal léegi nag mu def société bi e yow yonent bi jihaatal ak yéeféer yi jihaat day nekk ci kattan day nekk ci alal day nekk ci ay wax ca nga jihaat ak naafiq yi amma jihaatuk yéeféer day yegg ci xeex ak ñoom rayante ak ñoom amma jihaatu naafiq moom ci kaddu la yem borom bi mu ne wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga nafiq yi nga xam ne ñoom dañoo sol mbubum julit ànd ak yéen bu leen leen nekk di leen di rey ndax kon lan la nit ñi di wax comme na ko yonent bi doon waxee waaye wax leen leen wax yu dëgër yu taru yu yegg seen biir gannaaw ba yëpp xamal ne julit nafiq ak yéeféer ci àdduna day seeni att du benn ndax naafiq bi sol na mbubbum julit loolu protégé ko na ko kenn du ko rey kenn du ko jàpp di ko def ay jaam kenn du ko kaza wa kaza amma alaxira nag naafiq ya ak kuffaar ya ñoom ñépp ñooy ànd jahannama te suñu borom mu ne ak bon la nga xam ne muy mujj mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين جزاكم الله خيرا سن بروم جل وعلا مني ضرب الله مثلا للذين كفروا يالا داي ميغي دورال مثال ñeel ñi nga xam ne dañoo wedd imraata nuuxin wa imraata luut soxna nuux sa ak soxna luut kaanata taxta abdayni min ibadina saalixayni nekkoon nañ ci suufu ñaari samay jaam ci samay jaam yu baax ñu nekk seeni soxna fa xaanataahuma waaye dañ leen a wor falam yugniya anhuma min allahi shay'a ñooñu day amuñu woon di leen jëriñ ca yàlla ci lenn lu mën a doon wa qiila duxula naara ma addaaxilin gannaa ba ñu ne leen dem leen dugg sawara ànd ak ña fay dugg wa daraba allahu masalan lillazina amanu naam yàlla mi ngi dóor misaal ñeel ñi nga xam ne dañoo gëm imraata firawn kii nga xam ne mooy soxna firawna sa is qaalat rabbi ibni li indaka baytan fi ljanna bim naan ay yàlla yàlla nag ma tabaxal ci yow ak kër ca biir aljanna wa najjini min firawna wa amali ca nga musal ma ci firawna ak jëfam wa najjini min alqawmi zalimin ca nga musal ma ci xeetu tonkat yi wa maryama ibnata imran ak maryama doomi imran alati ahsanat farjaha moom mi nga xam ne daa fegoon lii di payam ba mi ngi noonu fa nafaxna fihi min ruuxina ñu daal di ëf ca pay boobi jaare ko ci suñu ruux ga wa saddaqat bi kalimaati rabbiha wa kutubi dafa dëggaloon lii di kaddu yi boroomam ak i téeréem wa kaanat min alqaanitiin moom day nekkoon na ca ñay wommatul borom bi jalla wa ala mbokk gis nañu suñu borom jalla wa ala bari na lu alak yéeféer yu bari jàpp ne bokk ga ñu bokk fa ñu bokk tax na ba yàlla dana leen xoole seenu mbokk ba du leen bugal yahud yu bon yi lu ñuy wax nahnu abnaau llahi wa ahibaa'u ñun ñooy doomi yàlla ki farandoom lu waral loolu siini maam ay yeneen ci lañu woon borom bi nag ne déedéet ee yéen soxna yi ak ku ngeen mën a doon xool leen misaal bi ma leen di dóoral kii di yonent yàlla nuux ak yonent yàlla luut ñoom day amoon nañu soxna yu nekkoon ci seen suuf mi ngi noonu ca loolu itamit ngalawaay yow jigéen intellectuel bi may dégg xamal ne day sa borom kër yàlla moo ko def sa chef yàlla ko def sa chef ca mooy dang ko war a nangul yal na yàlla yërëm suñu mbokk ba El Hadji Fajur Gueye dafa nekkoon Sénélec nee na dama daan wax secrétaire yi gis nga respect bi ngeen jox directeur yi su ngeen ko joxee seen jëkkër kenn du leen jiitu àjjana am déet directeur bay wax waaw na monsieur le directeur nangam nangam Sambata Ndiaye léegi dañ caa boole ba secrétaire yi sax dañ naan lu nupp directeur bi yaa ko war a toppatoo buy jóg yaay ñëw defar cravate bi chaise nangam booy wax nooyal sa làmmiñ ba mel ne lem lu tax ndax kii moo yor sa avancement moo yor sa affectation loolu mbokk nga war a gëm lu tax ngay def lii pour un salaire amma Mor Thiam bi la yàlla booleel lan nga war a sàkk ci moom muy aljanna soo dee ànd ak sa ngërëmal jëkkër te amoo sa meru borom àjjana nga jëm kon moo tax ba bu ne daf nekkoon seen suuf sama suufu jaam yu baax waaye ñoom ñu war leen wane ne ñoom ñoo ñoom ñoo bokk diine ñoo bokk doxalin ndekete ay naafiq lañu ñu dégg ci it ne mbokk yeneen ci yàlla nuux woo ci ne milan yeneen ci yàlla luut di doomu ibrahim doomu magam seen soxna yi ñuy nekkal ci biir kër gi xamuñu ndax ne ñii ay julit lañu ndax duñu julit lu waral loolu mbokk kumpa yàlla moo ko gàddul boppam mi ngi noonu xatta yonente bi sallallahu alayhi wasallam wa min ahli almadinati allazina maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum yaa ngi dëkk ak ci madina ñoo xam ne ay nafiq la ñoo xamoo leen loolu mi wane kumpa yàlla ko xam borom bi nee na war nañu seen jëkkër seeni borom kër ànd gañ doon ànd ak ñoom loolee day jëriñu ñu leen ci dara mi nga noonu ñu dolli ñaan suñu mbokk ba El Hadji Fadior Gueye yal na yàlla jéggal ko yërëm ko toog naag moom mu ne toog naag kenn ci sëtu kilifa yi diine yi nekkoon Sénégal mu ne ko man sama maam bi muy dee bàyyi na soixante quinze femmes mu ne ko ah waaw lu lu waral loolu mu ne ko ah ñoom yàlla da leen a xamal ni bépp jigéen bu jon jog ñoom yaram rek àddina nga jëm mi ngi noonu mbokk loolu mu ne bàyyi na soixante quinze femmes moom bi mu koy wax mu ne ko sama papa nag xaw ma ñaata soxna la am te loolu moom da koy bàkkoo soxna si amu ci benn gêne pour wax ko mi ngi noonu soixante quinze femmes mbokk ndax ne bu ñu seen yaram laalee rek àjjana la jëm waaw gars yi ndax sa maam moo gën yonent yàlla nuux ndax sa maam moo gën yonent yàlla luut loolee mbokk suñuy xalaat la ak suñuy wax waaye allaaxira yonente ak atteem soxna yonenteem ak atteem yonenteeg atteem doomu yonenteeg atteem keneen ku mën a doon nag loo ko mën a tuddee sëriñoo ustaasoo imaamoo lu la neex tudde ko digganteem ak boroomam doom amu ca yaay amu ca waajur amu ca li kulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughnihi ku nekk da nga am sa mbir bopp loolu la abdul war a xam kii mooy sama baayub sëriñ doomu baay doomam sama sëriñ la laa wallahi mbokk julit doomu aadama fokk ñu xool ndax yeyoo na ñu boole ko ci ña yàlla gërëm waaye ngir baayam wala borom këram kese du tax ñu àtte ko ci loolu falam yughniya anhuma min allahi shay'a dañ leen wax dugg leen sawara ànd ak ñuy dugg sawara borom ba nag wëlbati ko waat dóoral misaal ñeel ñi nga xam ne dañoo gëm muy soxna firawn mbokk firawna nekkoon ñi gën a mbëru ci kaw suuf ñu ëppoon pouvoir ci kaw suuf waaye soxnaam sa day bam gisee ne firawna jaarul fa neex yàlla daa gënale ngërëmu yàlla ci mboolem luxu àdduna mi ngi noonu loolu it yow julit bàyyil xel ci loolu na am firawna yéeféer la woon yow soxna julit dañoo araamal ci yow nga sëyeeg yéeféer au départ bis bu sa borom kër génne ci diine bisu keroog nga ko war a araamal sa bopp waaye nag mën naa bañ a doon yéeféer doon julit bu saggan yow loolu bu mu la yóbbaale saxal sa jaamu yàlla bu dee sàggane ne lay waxtu julli bu dee dafa sàggane ay koor ma ngay péeméeg ma ngay nangam laa bul xool loolu bul toppatoo loolu yow xoolal sa diggante ak sa borom moo tax soxna firawna lan la waxoon yàlla ba mu demee ba feeñal diineem firawna jàpp ko menacé ko crucifié ko daaj ay tànkam ak loxoom ne ko da ngay génn ci diine ci mu ne déedéet ba mu demee ba xam ni firawna dogg na pour rey ko ca la ñaan yàlla ne ko ay yàlla yàlla nag ma may kër ma dëkk ak yow ci aljanna ca loolu dafa jëkk a wax yàlla may ma kër ci yow moo tax boroom xam-xam yi dañ naan bala ngaa wut kër utal ay dëkkandoo na am jafe na loolu nitug ndakaaru waaye sunu maam yi day suñ masaan dëkk ci gox dem ba yëg ne ñoog seen njaboot dañoo menacé wu dañuy tuxu dem feneen waaye yow mi nga xam ne it yàlla may na la kattan nga am choix di jënd kër am choix di louer rek bala ngaa louer ci quartier xoolal quartier bi lan ban décor a fa nekk am na quartier yoo xam ne yóbbu fa sa njaboot mbokk musiba mënu koo passé mi ngi noonu fexeel ut quartier boo xam ne jàkka ju baax ma nga fa ngay man dem yaag sa njaboot di ko fréquenter di jaamu sa borom yal na yàlla yokk tawfiq suñu mag ba Abdul Aziz Touré day wax ne kër gu gaaf muy kër goo xam ne boo fa toogee doo dégg nodd nee na kër googu kër gu gaaf la jurit dafa war a moy moytu nekk foofu kon dafa jëkk a sàkku ab dëkkandoo mooy dëkk ak boroomam ci lan firdaws il aala firdaws arshu rahman rek moo ko tiim rabbi ibni li indaka baytan fil janna ca nga musal ma ci firawna ki jëfam musal ma ci firawna mu yóbbu ma ba génne ma ci sama diine yàlla musal ma may dem bay jëf li firawna ki jëfam di ak i mboolam di jëf ca mooy di la bokkaale najjini min firawna wa amali ca nga musal ma ci xeetu tonkat bi kooku mooy misaal bu jëkk bi ñaareelu misaal bi mooy ay yow soxna si nga xam ne yàlla dalaa may way jur yu baax ewaal bul mujje puso bi mu réer bul jàppale ni di mooy sama baay ah man yàlla du ma mbugal la wallahi kii mooy maryaama baayam moo nekkoon imran doonoon góor gu baax yaayam ju baax ja yàlla nettali nañu ko mi ngi tuddoon xaanna mi ngi noonu waaye teewul maryaama day lam jëkk a def mooy la gën a baax ci jigéen ahsanat farjaha daa fekk la nga xamee ni ni moom mooy payam ba lépp lu ko doon yóbbu ci njaaloo da caa protégé wu la ca jiitu mooy muuraay bu rafet ñuy fàttali benn premier ministre ci Italie ñuy wax problème mu voile voile yi mu ne non mais man mënu ma tere voile ba pare Mariama mi ngi voile suñu église yi gaa yi di di gis ngeen église yi ni ñuy wane Mariama di muuraay gi gaa yi bañ di Mariama noonu lay muuroo ahsanat farjaha lam jëkk a def mooy da doon muur ay cëram dox digganteem ak bépp góor mu sori ko mi ngi noonu borom bi nee na ca laa yónnee sama jàmba jibril mu ñëw ëf ca la nga xam ne mooy biiram ba kàddug borom boobee nga xam ne nii moom mooy sabnu mariam suñu borom ne mariama day la baayam ya doon baax ak la yaayam ya doon baaxit teewul moom tamit noonu la leen rawe woon ci mbaax ndax la chaque ne mariama dem na ba gën ndeyam gën baayam ca loolu la ñuy bëgg ci àdduna képp ci doomu aadama yi day bëgg ci àdduna fa nga fekkoon sa baay yow ba ñëwee nga raw ko ci wàllu àdduna na am noonu it yow nga war a góorgóorlu ci diine fexe ba raw sa baay ci diine fexe ba raw sa yaay ci diine loolee la ñu borom bi joxe misaal mu ne dëggaloon na kaddu yi borom bi mënu koo dëggal ca xamu ko looloo tax ñu toog fii di jàngale kaddu borom bi mënu koo dëggal ca xamu ko saddaqat bi kalimaati rabbiha dëggaloon na téere boromam ca maryaama day daa nekkoon ñu wommatul yàlla mbokk xaanit mooy kan koo xam ne lu mu dégg sami'na wa ata'na lu yàlla digle bu koy def du hésité lu yàlla tere bu koy bàyyi du hésité day wommatul boromam jalla wa ala kaanit min al qaanitin lii it mbokk lu ñuy won mooy diine jii du diiney góor ñi mooy diiney góor ak jigéen li ci war góor moo ci war jigéen yal na yàlla yéwénal suñuy góor yéwénal suñuy jigéen yéwénal suñu njaboot wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax julit bi xam ni lii dafa xaram mu ne xaaral ma def ko gannaaw ba ma tuub la nga xamee ne nii moom la ñuy wax ci loolu mooy kooku ku réere boroomam la jalla wa ala kooku waroon nañ ko laaj ndax yow am nga garanti ni soo defee bakkaar bi ba pare da nga dundaat kooku war nañ ko laaj ndax soo defee bakkaar bi ba pare yàlla dana dugal sa xol nga bëgg a jëm ci tuub loolee mbokk kon jude du def loolu abadan amma su doon te ne yàlla dogal na loolu am naa njaaloo après danaa tuub naa naan sàngara danaa tuub gannaaw ba mu ko xamee léegi mu deme dem def bàkkaar boobu yàlla dundal ko mu demaat ba jimmi jamono mu xam ne man kat la ma waxoon def ko ñaar yooyu yépp njuumte la ñaar yooyu yépp mu bokk ko tuub gu sell su boobaa it yàlla subhanahu wa taala dina ko jéggal mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam wa rahmatullah naam naam ala kulli xaal loolu lépp daf ñuy delloo rek ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku gis ci yéen lu bon na ko dindi ak loxoom wareef la ci président de la république wareef la ci ministre de l'éducation nationale ak képp koy xalaat wala les inspecteurs d'académie ñi nga xam ne ñooy tëral njàng mi képp ku ci am responsabilité wareef la ci yow nga xam ne théorie boobee théorie la boo xam ne ay yéeféer ñoo ko tëraloon Darwin ak i taalibeem ñoo tëral doomu aadama ci néant la jógee c'est le hasard et la nécessité yàlla amul ñoo tëraloon loolu mais loolu dem nañ ba tey kàngam yoo xam ne raw nañ leen bu baax ci xam-xam des scientifiques haut niveau ñoom ñoo saxal ngëm giñ gëm yàlla gëm ne seen théorie yooyu ñu wax ay gol doomu aadama ci golo la jógee avec découverte ADN loolu mënta nekk c'est faux loolee kon dañ koo war a xeex génn ko ci école yi amma bu dee ne loolu amagul yow li nga mën mooy si kéemtalal kattan yaa directeur établissement bi wool ña nga xam ne ñoo ko fiq xamal leen ne lii day dañu bu ñu amoon pexe bu ñu ko génnee dañ koy génne ci njàng mi waaye ñu ngi leen di ñaan képp koo xam ne yaa ngi koy jàngal xale yi xamal leen ne lii c'est faux lay dëgg mooy nangam mooy nangam te fa lillahi alhamd jàpp naa ne budul ay athée philosophe même chrétiens yi gëmuñu ne doomu aadama ci golo la jóg même chrétiens yi gëm nañu yàlla moo bind doomu aadama yi loolu daal kon lu ci mën a doon nga def ci sa kemtalal kattan loolu la dal en tant que prof SVT jamono yàggul rek maa ngi ciy wax ak koo xam ne prof philo la lu demee ni rek laa ko wax moo di ne comme yéen yàlla nattu na leen ngeen nekk foofu nekk gi ngeen fa nekk sax mën na jëriñ jullit ñi ndax xale bi jaaroon ci ñeneen ñoo xam ne seen yoon néewu ci ñu jàngal leen théorie yi ñu yóbbaale ko ñu dajeeg jullit boo xam ne nii dana leen dana xam théorie bi jàngal leen ko pare ne leen nag lii c'est faux démontrer leen ne leen c'est faux lii mooy dëgg loolee mën na caa sauver ñu bëree bëri yal na yàlla laabal suñu éducation laabal suñu doxalin may ñu aafee ci suñu réew wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain